ñu ànd ak ñun ci turne bii nga xam ne dañ koo fas yéene def ci réew mi yëpp fépp foo xam ne jàppandi na te ay taalu ba ne fa ñu fas fa yéene dem àggaleen liggéeyab Sëriñ Tuubaa bii nga xam ne liggéey bu ama am solo la boo xam ne bu am solo ca dëkku Tuubaa bee bu am solo ci murit yépp la ni ko Cheikh Abdou di waxe rek muy warugar ci ñun fu ab taalibe nañu fekk ko fa jottali ko liggéey bi kon looloo moral tànk tey yi fii ci daara kon nag nuyoo yi ak cant yeeg ngërëm yëpp ñu ngi koy tàmbalee ci teg ko ci loxol sëriñ Cheikh Jooreel Mbàkke mi nga xam ne mooy jëwriñ ji di sunu bintu fii ci Jolof nga xam ne bi ñu jógee jàpp ñëw Jolof ci ni ko sëñ Modou Mbaye waxee ngir yaatal liggéeyu sëñ Touba bi nga xam ne dañ ko bokk ak mbooleem murit yi waaye mbooleem murit yi mbooleem jullit yi ak mbooleem ku bëgg lu baax dañ ne nañ ko barkeerloo tàmbulee ko fii fi Mbàkke Baari gi nga xam ne fi la sëriñ bi xëye woon bis ni tey di ab gaawu engagé liggéeyam bu rëy boobu nga xam ne wax na ne mbooleem lu mu am ci liggéey boobu la ko amee gis yéene ji sëñ bi amoon ci dëkk bi ñu taxawee ca gis itam téere bi ñuy wax Matlabul ni nga xam ne sëriñ bi bind na ko ñaan ci sunu boroom li mu bëgg tuubaa mel ni ak li mu ca bëgg wax ci li taxoon mu sanc ko nu am pas-pasub nag nun ñi bokk ca ña nga xam ne ñaan yooyu sëriñ bi ñaan ca dëkk ba danañ bokk ci ña koy ña koy ña koy yéwénal ginnaaw bu ko yàlla nangoo daañ bokk ci ñi nga xam ne ci ñun la koy jaarale loolu moo waral bi ñu dajaloo doonoon groupe boo xam ne dañuy xalaat aka waxtaan ci lan mooy jëmee dëkk bi ca kanam te mu dëppook bëgg-bëggub sëriñ bi ci ni mu ko bindee loolu yóbbuñu ci ñuy dox ba nekkoon kat du ñu yem ci di xalaat ak di wax waaye dañuy jóg jéem a xool loolu naka lañ ko mën a jëmmale ndax niñ ko baaxoo di waxee rek xam nañ ne fii ci àdduna li fi gën a bari lu ci dul baatin rek ay koppar mën na ko surtout lu jëm ci nu ñuy def ba développer ab dëkk ca lañ fa woo mooy li nga xam ne doomu aadama mënu koo ñàkk wala ku sañoon am ko fa nga dëkk mu jëm ci wàllu wépp nag wàllu njàng xam-xam wàllum paj mu baax wàllu assainissement wàllu sécurité wàllu ndox mu set mu sell mu nit mën a jëfandikoo wàllu ay yoon wàllu social dimbali nit ñi ak sax barab yu nit ñi man di suturloo ba mën cee jël luñ jëlee luñ mën a dimbandikoo ba man ca taxawu seen i bëgg-bëgg. Ah, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Mbaye di nuyu bokki taalib yi yëpp ni ñu ko waxee ci njëlbeen rek bi sëriñ bi waxee ne dafa bëgg ñu yaata ko ci biir régions yi ndax leeral na fiñ ci doxe ci at yi yëpp ak lañ ci jot liggéey ak la fa des ñoo amoon yéene nag yaatlu ko ci régions yi sëriñ bi itam taamu woon ñëw Mbàkke Bari ubbee ko fii ci Jolof ñëw Daara dem Linguère ñu ma ko waxee itam ñu amuñu lu dul yéen ñi nga xam ne yéen la ñu àndaloon naka jëkk liggéeyub Serigne Touba yi ma ne ko kon bu ñëwee dana fekk njiiti kuréel yi ci ca Mbàkke yi walbatikuwaat ñëw Daara ñëw ci président daayira bi nga xamante ne moo ngànk daayira yi nekk ci biir Daara waxtaan ak ñoom jébbal ko liggéey bi bu defee ñu ànd dem Linguère itam ku mel ne Serigne Cheikh Ndiaye ba nga xamante ne moom moom it moo fa nekk représenté fa kilifa yi. ñu waxtaan ci ak moom ni ma ko bëggee nag mooy am na yu ñu bàyyi fële ci mbàkki baari waaye moo sañoon itam fii fi daara dañ fi bàyyi loo xamante ni yéen mbooloo mi ci boppam ni ngeen doon saytoo liggéey bi ci yeneen yu bokkut ak liggéey bi itam ma bëggoon ñu saytoo ko liggéey bi ngeen seet ñoo xamante ne ci seen biir ñooy may yoral liggéey bi di ci dox bu ko defee lu ca lu lu ca lu ca lu ca génne ñu àndandoo ñëw ñu versé ko loolu daal mooy li nga xam ne moo ma moo gënal nekk nañ daal jëwriñ ji sawar nañ ci bi nga xamante ne sëriñ bi bëgg na ko andi fii ñu teg ko seen loxo itam man awma lu dul yéen ci liggéey bi nga xamante naka jekk lu ñu fi yëngatu liggéey sëñ Tuubaa yéen laa koy àndal kon nag bu ñëwee fii daal kon li ma doon li ma doon ma doon gënal mooy ngeen waxtaan ci seen biir ñu seet loo yoo xamante ne dañ ko fi bàyyi ngeen saytu ko ñu àndandoo ko di ko toppatoo di ko dox ak waa ba li sëñ bëgg lépp mu ko li ñu gis daal mooy nañ fagu te góorgóorlu te jël Touba ca kanam gi xam ne teg nañ ko ci loxol sëñ Cheikh bu ñu ci kenn ëppale nañ góorgóorlu ci dagg reçu yi weer jot wu ne ba bu sëñ dem di yóbbu jëfam bu ñu fa fekkee jëfam xam ne kat kii mat na li mu doon kon ñun ñëpp nañ fabuwaat te góorgóorlu te nekk ci loolu laay soññu ñépp li ci soññu sama bopp. mooy fii ngeen wàcc di Daara Jolof ay taalibe fi yu am pëseef ndax naal yuñ fi gis rekk ñoom ñoo ko taxawal. Euh, dëkk bi nag comme ni ko Baye mbay waxee am na nu mu bindoo ndax ginnaaw bi Baye mbay doonee jëwriñ ji murit yépp waaye teewul ay xeetu daaira ñi ngi fi incha allahu rabbi li gën a am solo ci keno yoonu murit ñu ko téye si jolof ñu ngi ci jataay bi bu soobee yàlla dégg nañ kàddu yi lépp luñ ci war a def bu soobee yàlla bu jataay bi noppee danañ woote beneen jataay bu gën a yaatu bii nga xam ne bu si nekk lam ca war a am ab cër dana ko ca am. liggéey bi yëpp teg nañ ko ci loxo suñu sëriñ muy sëñ Cheikh Jorel incha allah jo daara suñu jëwriñ ngi nii am na ay daayira yu fi nekk danañ waxtaan ci suñ biir ba xam nu liggéey bi gën a rafetee ah ci suñu ci ci suñu ndigalu sëriñ yi ñu tëralee ko noonu waaw.